li intéressé mooy li intéressé politique daal moo fi xew. moo fi xew. Mhm. électorat parrainage nangam. Mhm. mais daan tout ça daal man daal bu doon sama sagu ñu jubal. ñu jubal ñu war a jubal nañu jubal. ok ñi ñu teg ci tête de telle chose ou telle chose dañu doxal seen akulaay taala. Mhm. parce que fii dëkku jullit la. lépp lu fi waaye def rek tout tôt ou daf lay rattraper. tout à fait man su doon sama sago képp ku ñu jox responsabilité rek doxalal te yàlla tax. Mhm. te nit warul am lu mu ragal lépp loo ragal la nga ñemee nga fa te farfos lay ñu. boo ragalee dara ba demuloo ca. wala di ca bañ a wala di ca bañ a jaar lu li nga waroon a ñemee day ñëw ci yow par force. Mhm. te doo ci mën dara. te doo ci mën dara te doo mën a en arrière. tout kon bu doon sama sago man. li ñuy wax rek sotti ceeg def ci la. Mhm. le soir ñu daanoo suulaar bu à palaab tout le monde retrouve tout à fait kon papa yaay doom maam. Mhm. te Sénégal ñëpp bokk. sa mbokku mbokk rek mooy sa mbokk. politique jaru ko boo ne kenn xamuma waxoo dëgg parce que am na ñu la xam kooku am na ku xam kooku am na ku xam. tout à fait ngeen sax. wallaay def ko ko nga xëy suba ñu wax la li ngeen bokk wala li ngeen doon. boo dul mën a dindi. dëgg la man Sénégal bu doon sama sago rek ñu am tuuti lu ñu sàmm. Mm. ou bien ñuy may mag ñi ñuy wax. ñu leen di déglu waaw ñu ñuy déglu ah, seigneur yi wax nañ ko fi keroog ñu ñuy déglu mm-hmm. ak di ñu may espace fu ñu waxee parce que y a pas l'espace y a pas le respect amul daal cër bi daal ñëwul ko bu cër bi ñëwoon gëdd bi ñëw am na loo xam dañ ko mën a waxal dinañ ko mën a def mm-hmm. te léeg-léeg bu la kenn dégluwul sa waa kër dinañ la déglu au bu la kenn dégluwul sa mbedd dina la déglu sa waa koñ dina la déglu bu la kenn dégluwul say mbokk dinañ la déglu mm-hmm. ñi la bëgg dinañ la déglu ñi la xamul te mësuñu laa dégg nga wax dëgg nga la nga wax yoon dinañu est-ce que kii dëgg la wax. Hmm. bu dee nit parce que toujours léeg-léeg nga dégg nit mu wax ñu ne critique critique mais Sénégal daañu nañ doxal yoon. nañ doxal dëgg te nañ ragal yàlla man daal foofu rek laa ko teg.